non dama man sama xarit bu yàgg bi nga xam ne. Ah, ah. bi ma la gëjee gis ak léegi yàgg na parce que léegi da bari xaalis quoi. léegi naa yaa ngi toj ma du la damay xaar bu nga prouvé ma lay doog a seet man noonu laay def. damay ah. xaar ba xam liggéey liggéeykat nga. man sama téléphone bi duma ko dëpp du ko dëppal ku ñàkk jom. du ma ko dëppal ku ku ñàkk njëriñ. du ma ko dëppal ki nga xam ne deful dara Sénégal du ma ko dëpp ki nga xam ni ay waxi kasaw kasaw lay wax. kili kilifa laa koy dëppal dëppal mhm. te xam naa ni liggéey nga ah, ah moom baax na moom Séné kii sénégalais kii mooy Akon kii mooy ki nga xam ni mooy Akon moom laa njëkk a gis góor boo xamante ne mooy liggéey ongleri ongleri xaw ma ongleri ongleri <laughs> <laughs> waaw bëri na ay dañ laa dugal école nga daw moo tax mënoo wax anglais daal beneen ay star yoo xam yu jigéen yoo xamante ne bala ñoo dem xew wala bala ñoo dem clip wala bala ñoo fii la ñuy jaar. Hmm. nga defar leen seen kanam ak sa loxo seen loxo ngay daw ah, ah, allez école nuyu nuyul Sénégalais naa ñëpp bëgg naa ñëpp ñu ñuy seetaan ci page mbay lambar lambar. Hmm. peace. Hmm. ay kon su su ma su ma su euh, euh, si wàllu euh, defar. kanam ak ki si góor defe naa si yow laa ko njëkk a gis. mais nag commencé nga nekkoon Ouest Foire. mais nag commencé wul si man parce que am naa ci ay mag yu bëree bëri. Hmm. déjà ay nit yu ma yoo xam ne nii dama leen estimé. ci hmm. ñoom laa gisee affaire bi. Hmm. affaire bi neex ma donc ñoom ñoo jàngal affaire yi quoi xam nga man à la base li dul sama domaine. je suis mannequin professionnel. Ah. en même temps acteur top model aussi. donc fréquentation. Mhm. ak xool affaire bi. Mhm. affaire bi neex ma moo moo indi influence bi mhm. lu indi turu Akon bi ba ah, ko indi. ci oh, rek ñu may woowee Akon. dama xëy au oh, ci dara. mu nekk sama ah. ma ne noonu ah. Euh, euh, la nekkee sa grand te nga nekk Sénégal moom mu nekk. waa Kaan sama mag la parce que Kaan am naa ak ah, famille am ay histoire yu historique mm-hmm. yu yaatu mm-hmm. ku ci mel ni bàjjanam papaam yaayam ak sëram ak ay cousin am comprendre mm-hmm. donc euh, voilà quoi donc sama diggante Kaan moom longue histoire la c'est vrai ñu bëri bëri xamuñu ko même Kaan ci boppam yéex na xam loolu yéex na koo xam maa ngi ko maa ngi ko njëkk a rencontré en 2017 à travers Guèye Daala. Mm-hmm. Guèye Daala moom ko presse. 2017 ah. ñu gisee woon quoi. Mm-hmm. ñu est-ce que mos ngaa mos nga gisanteeg moom. mais 2017 jusqu'à maintenant ñuy gisee. Mm-hmm. récemment rek am na benn artiste bu ma fa yóbbuwoon. fan foofu. ci moom ci moom. Ah. fan États-Unis non fii. ci benn ci benn place. waaw. ay kon mi ngi Sénégal ba tey mais de temps en fi ñëw xam nga tamit fii mooy mhm. que Amérique lay live mais mbokkam yaa ngi fi am mhm. ba mhm. ah, dem xooli ah, Akon ak ak ak kiiwam ak xaritam ñu ñu ñëwaat. da nga bëgg dem gis waaw xaar ñu won leen tuuti. waaw image. waaw ah, loolu cool na. ak ñu ñëwaat. ñi yéen a gis noonu ay kon ak ak ak xaritam ah ngeen doon lan ngeen di doon kii déewante lan ngeen doon waxante. dinaa la dinaa la noq nag ma xaw ma ban sëriñ jaar ba mu ba mu ma ba nga ñëw ma sax. <laughs> parce que suñ la gisee dëggantaan la suñ la gisee dafa dafa ndruuk ay kon tamit. Hmm. dafa ndruuk style yi benn la euh, lépp benn la. waaw loolu nag moo gën a moo gën a tax sax ñu ma rencontré ko donc rencontre boobu bi muy am. ñu bëri bëggoon nañ ko def mais suñu borom ci gay daala la ko jaarale woon mhm. dafa am bés rek mu kóol ma quoi dama mhm. booy préparé woon am fu la yóbbu mhm. ndege boobu kan la ma doon wan après ma absenté rendez-vous boobu loolu laa mu xëyee mu mu mu ma ne ma tey loo mënti jàpp ñëwal nga am foo mu gunge quoi comprendre nga donc ma ma teel yeewu sañse affaire yooyu noonu ñu tasee jël yi mu yóbbu ma téeru bi quoi. Mhm. donc bi ñu demee téeru bi bi may dugg laa xam ne Akon laa war a gisante bi mhm. donc parce que damay dugg ñëw di dugg ci porte bi euh, visité ñu foofu. Mhm. après xool ma xool gay ak keneen ki ne ko non non bàyyi leen ñu dem seen grand bi la ñuy seet quoi. après ma ne visite bi ban grand mu ne ma Akon ma ma xool gay ne ko nii mu ne ma non laa lay won il faut ma wan la sawaay parce que da nga ko war a gis hmm. comprendre nga noonu ma dugg rek xam nga ñu patienté ay quelques minutes sawaay génn fekk am na benn conférence de presse bu ma waroon def hmm. donc jour boobu la ñu njëkk a gisee hmm. mais après gisewaat nañ gisewaat gisewaat gisewaat yu bëri bëri bëri bëri jusqu'à maintenant bu ñu toogee proposé woo ko sa wàllum liggéey ak wala sa wàllum euh, romb fi nga nekk wala euh, yooyu ak yooyu waxtaan nañ ci lu bari ah période boobu maa ngi doon tourné benn série je pense jotoon mm. naa ko ci briefing mooy ci deuxième gisee parce que première gisee bi dafa xatoon te dafa busy woon mm-hmm. je pense que xaaroon naa ko lu yàgg ci ci ci ci ci kii bi ci cours bi pour que ñu mën a am benn temps bu ndaw mën a ay ay ay photos yi tout ça mm-hmm. dafa wax carrément que dafa busy temps am bëriwul di ko dane day dellu si bi mu dellu nak nag bi ñu amee occasion toog doon xewlu ci laa ko jotoon briefing ay affaire quoi ne ko maa ngi def ay série maa ngi maa ngi business yeneen deal comme yi mhm. mu apprécier ko ne ma baax na il ngeen liggéey parce que moom loolu la gëm il ngeen liggéey xam nga parce que nit fépp fooy euh, mën a yegg si àdduna liggéey moo la fay yeggale xam nga ba ci yeneen gars yi nga xam ne dañ koy fréquenté booy yi foofu la loo leen di def affaire yooyu su amee temps mooy yi expliquer ku nekk li ngay def ab dala ciy encouragé yi mhm.

waaw mais quant jox ma fond ne ma demal nga job wala dara non parce que bi ma koy xam maa ngi maa ngi yëngatu. Mhm. ñàkkul ne saa yi suñ ko gars yi di Sénégal dañ koo xaw a yab te seen mbokk la fii la juddoo mais Sénégal lu ay eh, kon business bu mu kiiwee bis business kaay xëpp si kaa nee ne loolu du am loolu noo ko jàngatee. waaw mais Sénégal la mbay Sénégal yombul fii foo fi gis mu takkale ba ba ba affaire am takk rek jàmbaar la. Mhm. damay faral di wax ne. Sénégal ni ñu fi war a respecté dañu bari trop. Mm-hmm. parce que dëkk la boo xam ne yombul. Sénégal sénégalais euh, gaawul ci jàppale moromam. Mm-hmm. surtout bu fekkee ne da nga nekk sénégalais nekk fële ñëw war a investir fii Sénégal donc du coup ñu bëri ñu ko def amuñ ci ay ay ay ay résultats yi nga xam ne yooyu lañ soxla woon. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo la war a jàppale parce que ñoom ñooy say mbokk mais la plupart dañ lay xeex. du coup kan loolu moo ko dal fii. récemment rek maa ngi dégg euh, benn deal bu mu doon def ci ginnaaw projet boobu nga xam amoon na. projet boobu gars yi ñoo ko kii gis naa waaw ñu ngi dugg amul xaalis. par la amul kii du ko def. non c'est-à-dire am na projet yoo xamante ne xam nga business dafa large. Mm-hmm. tey tey tey sama business bi lu muy ndaw ndaw mënoon naa ko bokk ak ay ay nit yu bari ñii ñëw nekk ak actionnaire. xam nga mm-hmm. fa la àddina bi toll tey Sénégal rek ngay gis nit di jéem a bàkkoo lii man kenn maa ko moom. Mm-hmm. mais soo génnee société yi gën a mag si àdduna bi ay nit ñoo koy moom c'est-à-dire dañuy ëppalante nag ci ay part mm-hmm. kii mooy moom part vingt pour cent kii moom part trente pour cent kii moom part trente quarante pour cent voilà lool la mm-hmm. loolu la mais cest à moom business bi mu bëggoon def fii du moom mooy génnee propre xaalisam pour def loolu parce que am na yenn business même soo amee sa propre fonds maanaam waroo koo jël nga def ko ci business boobu mais da nga war ay partenaires comprendre ah. tey soo xoolee état bi dafa soxla ay partenaires. Mm-hmm, mm-hmm. lu toll ni état soxla ay partenaires waxuma la ak benn nit. Mm-hmm. donc ñu bëri xamuñu business comment ça se moo tax gars yi xëppoon si kaani ba mu daw. waaw mais bien sûr mais pourtant loolu lu baax la woon ci Sénégal et puis lu doon avancé loo affaire tourisme bi la parce que su ko fi defoon am na nit yu bëri yoo xam ne dañuy dégg Sénégal mosuñu fi ñëw. dinañ fi ñëw uniquement pour affaire boobu noonu. comprendre nga te noonu. njariñ la woon pour ñun ñëpp mhm. man bi ma déggee ne gars yi laxas nañ ci ay jaan affaire mhm. yooyu sans mal mhm. mais bon amul solo c'est le Sénégal acca ñu si sa wàllum ay ay ay ay waa léegi yow foo réeroon yow ah danga ma bàyyi man maa la war man maa raar <laughs> xaw ma ah, baax na nekk ci eh, avion yi dem fu la neex. mais yàqati neex. léegi lan laa def ah, man yàqati nga ma comme d'habitude. defal ne ma zoom ko. kon kontaan nga ci man nii tu <laughs> kontaan ci man. non kontaan naa comme d'habitude toujours. I love you I love you ah! moo tax ma <laughs> duppee la moo tax mu fayal li yaa fi ne ay ay ay ay nekk si liggéey boo xamante ne dafa bëri euh, ñoo xamante ne duñ ko nangu duñ ko nangul góor noo koy dundee. waaw mais man je m'en si ay ñu bari duñ ko nangu wala. Mm-hmm. bon whatever. xam mm-hmm. mm-hmm. na yoo xamante ne bii la. complexe la doomu aadama amul benn liggéey boo xam ne suñu borom daf liggéey bii baaxul. lépp loo xam ne mën nga ko def pour. Euh, pour daan si sa doole dignement mhm. gagné si sa vie mhm. pour man loolu dara ëpp ko solo mhm. tey ñu bëri ñu ngi sa fii ñu ngi bañ fii ay liggéey du genre bu ñu génnee en dehors de fii dañ koy def te man dama jàpp ne li may liggéey dara gënu ko noble toog yëkkatiwuma teguma clim di ma ko pour xam ay jongoma di ma wër loolu dafa neex pare dina jox ma loolu dafa neex ku am li ma am jël li am solo rek mooy euh, mooy nga am valeur nit da ngay am valeur xam nga am valeur ci sa bopp ba lépp loo xam ne yaa ngi ciy yëngatu rek mm-hmm. ku la ci fekk naaw la respecté la ci mm-hmm. kanta da ngay buub mbalit man tey su ma demoon di buub mbalit soo ma gisee rek may jox sama cër parce que liggéey bi la yére la mm-hmm. liggéey yëre la boo sol soo wàccee da koy summi teg subaa nga xëy solaat ko loolu moo tax ñu naan la nga naan sama simbang yaa ngi nii xaw ma ndax xam nga luy simbang mm-hmm. loolu ñun ñun kaw kaw yi ñoo ko xam ñun mm-hmm. baykat yi mag yi mm-hmm. bu mag laa su donc loolu la quoi nekk ci li nga nekk valorisé ko xam nga ba fi mu nekk nii yaa ngi siy dem fu ne waaw maa ngi ciy dem fu ne ah, waxoon naa ko waxoon naa ko en 2011 one day maa ngi ñëw mm, maa ngi ñëw def business ba nga xamante si ne bii dina ma permettre ma am accès fépp ci àdduna bi parce que euh, pour man boo usee sa brain rek di nga am di ma bëgg affaire yi météo lu sa maay rek parce que koom-koomu euh, nit xaalis mm. avant mu euh, avant billet bi ngay gis mais billet bi du xaalis mm. xaalis c'est c'est maay si xel la quoi mm. di use sa brain am sa money xam nga sans coono te tey tamit li ma créé nii nii am na ay nit yu bari yoo xamante si ni tey ñu si gagné seen life loolu mooy li ma ci gën a neex Mhm. comprendre nga mooy li ma ci gën a gën neex ñooñu noonu tey mën nañ dem ba créer leneen ñeneen di ci live pour man loolu mooy tax dëkk di avancé si mhm. mais complexe bi duma ma def lii affaire mhm. jigéen la man défilé de mode laa njëkk a def te défilé naa ba waxuma bàyyi naa défilé mais ba ñu may arrêté nii parce que dama koy continuer waat mais ah. en France te aux États-Unis bientôt du yàgg dama koy démarré waat comprendre nga donc def naa ko ci fulla ba ni ma toogee fii kenn mësuma si wax n'importe quoi parce que jigéen nga en tant que góor bu may défilé da xam ne kii góor buy défilé la nga mm-hmm. xëy da nga si dégg lu ne da ngay góor jigéen nga dégg bu baax na ah, baax na lii yaa nii da ngay dégg lu nekk récemment maa ngi lay dégg ci ay affaire mm-hmm. maa ngi lay suivre parce que ne yàgg na <laughs> maa may may ñëw fii may créer sama lii mm-hmm. yàgg nañu xamante ah, yàgg nañu ah, fekkante ci ay lieu may may may lamar lamar demi woon mhm, mhm. donc su la gisee tey affaire bi yéeg ba benn niveau bi nga sa YouTube di doxantu ñu bari di la di la di la xaw a fayda mhm. alors que da ngay liggéey bëgg ah sa digganteeg artistes yi tamit nga gis ngay ngay dem feeñ ci clip yu bëri fi mu nekk nii lan moo indi ak collaboration collaboration ak artistes yi ngay feeñ ci clip yi di feeñ ci série xam nga man à artiste la man artiste wax la ko def le demandement yi sama sama sama métier hmm. donc par la suite eh, ma ma hmm. ma dem ba dugg ci affaire actrice wala acteur baal leen ma njàng maa xaw sori lool maa ngi woon daara ja xam hmm. nga donc nekk acteur nekk top model mannequin du coup damay def ay publicité damay défilé xam nga loolu yëpp ci aar la donc nekk mélomane aussi am écoute bari ay xaritu waykat donc waykat yu bëri ñoo gis may affiché woon ça ne veut damay liggéey ak ñoom wala dara mais samay xarit lañ. ma doon jox ay soutien. Hmm. parce que souvent di nga gis sa xarit nekk ci dara. Hmm. nga man ko apporter le soutien. Hmm. comprendre nga. c' ça clip bi clip yi ma njëkk def dañ ma contacter fay ma xaalis ma def ko. am na ci yoo xam ne samay xarit ñoom ñoom ñoom ñoo koy def woo ma. def naa clip ak euh, Yacine Serigne Map tay la boobu laa njëkk a def mm-hmm. euh, Prince la laa ko defaloon mm-hmm. euh, def naa ak Akhlou def mm-hmm. naa ak ci donc récemment am na beneen bu ma def boobu ñëw lakk daay gi mais boobu boobu yemuma ci def ko mais dama ko produire ak Serif tamit waaw waaw waaw boobu boobu boobu ma ko def def naa tourné leen ko fii waaw clip boobu nag suñu borom si def barke quoi waaw parce que parce que waaw nu mu demee la clip bu dafa am ay mbóot yu bëri nekk ci biir mm-hmm. d'ailleurs boobu laa mujjee def sax mm-hmm. depuis leur gars yi may contacter pour ay vidéo ak ay kii mais comme maa ngi busy fii nii xam nga mm-hmm. wante dinaa dinaa reprendre dinaa reprendre am na série yu war a yu war a ñëw sama kanam donc comme kër gi fi mu nekk nii. du yàqal doon la yàqal dara sa liggéey. non non non ma yàqal dara équipe baa ngi fi. récemment rek maa ngi woon China pour euh, pour régler ay matériel pour euh, pour mm-hmm. décembre bi. Mm-hmm. pour clients yi mën a am qualité. Mm-hmm. am satisfaction fii nga xam ne dañ koo soie muy man. Euh, ñu am lu neex loo xamante si ne bii duñ ci dépensé xaalis bu bari. te fuñ génn ñu laaj leen lii fan ngeen ko defee comprendre nga. donc période bi fa la liggéey bi tolloo. dafa liggéey bi toll di dem di indi ay affaires yu bees di ko proposer clients yi te du leen côté lu cher trop trop trop parce que dëkk bi amul xaalis dëgg la comprendre nga mm-hmm. voilà artistes yu bëri fii lañ leen gis ñuy ñuy kii comme so mais sama diggante ak ñoom am ku mel ne kii dafa mel ne Ndaya Sula muy muy Sénégal defe naa ah, moom ah, yàgg nga ak moom nag moom kooku kooku sama mm-hmm. sama jigéenu bopp la mm-hmm. jigéen la boo xam ne mu ko préféré par par par par ngoram mais par par par respect par jongoma waayam ba pare mu nekk koo xam ci man yàgg nañu yàgg nañu lool. déggoon sax da ko doon waaj a takk xaw <laughs> eh. ay kon mooy takk amoon ay si nday nday nday nday ah, xaw ma ay kon moo koy ay kon ku naan kuy ay kon kuy eh. ay kon hmm. ñu ne ay kon mi ngi sama la nga dama ko trop parce que dafa nit bu c'est vrai que bi gis comprendre te loolu zaahir bi la mais am na lu bëri lu lu lu nëbb lu nekk ci ginnaaw muy nit ku am valeur ba d'ailleurs sax boutique bi boutique bi ci li mu yëgul moom laa def ambassadrice bi officiellement parce que waaw xam nga nit ki nga respecté rek ngay tuddee sa doom nit ki nga respecté ngay moom nga tuddee doomam moom nga tuddee sa doom dam la ne nit ki nga respecté mm, mm, mm. ah waaw waaw moom ngay tuddee sa doom nit ki nga respecté ngay tuddee sa business nit ki nga respecté ngay tabulu mel ni ambassadrice duñ ko jox n'importe qui donc fi ñu jaar démb ba tey nga xam ne boobu dara amul xam nga mm-hmm. waaw boobu dara amul mais bu kii takk ko yooyu takk takk takk mu nekk sa jabar ak yooyu tey laa lay nettali lu garaaw déggoon naa ko de tey laa lay nettali lu garaaw uh-huh. est xam nga sama soxna bi ma takk nii uh-huh. avant ma koy takk bu ñu mosaan a xuloo uh-huh. moom maanaam moom day takk ndigam ko mu dëgër parce may gis moo nekk en su ma ñëwee damay énervé parce dañu xuloo moom day bokk ci ñuy soldat la pour jubóole réew ma sa xam loolu ah kon foofu takk waaw mais déggoon naa nag ñu ne ay ko <laughs> xaw daf fee bëri woon tànk nag <laughs> waaw mais sama sama nit la sama xarit la récemment rek invité na ma vogue soirée waale mhm. ma ñëw mu ne ma Fall defal lu la neex kam sama diggante ak moom ba pare dañu bokk ay sant mhm. sama diggante ak moom yaayam rek moo ci xam dara mhm. sama sama jigéenu préféré la jigéen ju bari valeur jooju kooku kooku préféré la moo tax boo duggee nga fiy gis photo bi ma defal la ci ambassade bi officiel bu kër gi waaw suma diggante ak moom foofu ba kër gi doonul dara nag laa ko fi doon gis taxul nañ fii jamono bu yàgg ba nga xam ne kenn du ko demeral ko lu nag comprendre c'est ça loolu moo loolu moo dox foofu te aussi bëri naa ci bëri naa ci ñoom bëri nañ samay gaan lañ ñoom ñëpp mais moom bosom dafa particulier mais ñoom ñëpp samay nekk ci série ñuy way comprendre nga ñu ne ci yeneen fànn yi ñu ci bureau yi bureau yi boo demee agence yu mag yi na entreprise yu mag yi nekk ci réew mi seen seen seen jigéen yi dañuy teew fii mm-hmm. télé yeeg yëpp ah. kër gi kër gi ñëpp fi ñëw aca mm-hmm. mm-hmm, ana xanaa du du ma toog tey te mu wax sa waykat bi yàgg sa sërifo non loolu moom du ma la ci wax dara ah. mais dama doon gis ngeen ni ànd kii mais àndatu leen loolu moom aujourd'hui mënuma la ci avancé dara dara sincèrement parlé parce que heure bi ma ci war a prononcé jotagul sincèrement sa diggante ak Serifo nekkoon naa di ko di ko jox samay soutien joxatuma ko ko daal moo li ci tax joxatuma ko ko on se viendra peut-être ma avancé si dama gisoon ngeen nga déggoog moom nga nga di ko ngeen loxo bi defal li defal li defal li man gisatuma Serifo gisatuma sax bi ngeen quitté <coughs> dafa mel ne quitté ngeen parce que. bari loolu ci may dara. parce que àndatu leen dematu leen fenn. non non non mais sopp nga mais loolu moom. mais Chérif Chérif Fo ak li mu ngeen li ngeen nekkee woon yéen ñaar xam nga di ko yóbbu ah di ko yóbbu ay boîte di ko yóbbu euh, kii ngeen bokk vol di def lépp bañ jàng naa sax bi bi nga bi nga bi ma gisee àndatu leen si laa gis mu bàyyi tourné clip tourné tul boobu ba léegi mooy clip bi nga nekkoon. ah man ah, su nekkee nag su nekkee nag dañ leen da ngeen dañ leen a jaxase nag bëgg naa nag jubóole ni parce que fu nekk nii jiglaayam nga njiglaay njiglaay nga ma de mbay sob nga trop. non ndik la yem nga. fofu mom heure lay xaar wa bés peut-être bés dina ñëw moo war ci wax dara mais la di joxoon na ko sama soutien mais la ci fini quoi. hmm wa joxoon na ko sama soutien pour jàppale ko mais la ni mom finis finis mënuma la ci avancer dara nak mais peut-être. jotewu leen xaalis ko temps bi laajee. mooy déggoo li ma la wax de mënu ma la ci avancer dara lenn laa la ci mën a wax mooy joxoon naa ko suma soutien pour jàppale ko actuellement téye naa ko ko cause cause yi ko waral nag mhm. peut-être un jour bu ko temps bi laajee dinaa la ko expliquer pas aujourd'hui dafa man gis man dama ko gisatul sax Sénégal ah li yàgg moom la de en tout cas man maay ah waaye léegi man man naawoo sérifo su ma ko mayee man naa dem ba jaaxaarloog moom waykat boobu nga xamante ne seen clip boo xamante ne clip bu defe naa bi nga bokk bi nga ko bi nga ko jàpp boobu noonu moo ëpp defe naa moo ëpp bës wax dëgg yàlla ah. te nga koo jàppale mu gën a nekk international. Eh, man Mbaye dama lay moom làkk ma la fa sori. lay ñuus. waaw laaj nga ma ne la naa ko. sa diggante ak Chérif Lo doo si wax dara. moo tax temps yëpp nga topp a wax loo <laughs> parce que Chérif Lo tamit ah fan fan yee passé woo naa kim dem naa def émission kim doon àndal. Hmm. mu ne bàyyi na ko. ok mais xanaa kooku waaw ah nee kooku topp naa ko ba mu sës sama xarit waaw mooy kim doon bokkal kii rek clip rek mais yow rek yaa ma dese waaw ah, man nag dinaa la dese nag. ah parce que du la wax la dese de. ah kon yàlla ba ay <laughs> yes maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi kontaan. vraiment lii moom euh, souvent du ma koy. waaw ah, bëggoo ko parce que topp naa si ay ay weer weer. bëgguma ko trop trop trop souvent nag dinaay dem ci télé yeeg yooyu noonu gars yi invité moom ci wax mais comme nii moom xam xarit nga mais li may tàggatoo mooy di la wax kontaan naa maa lay encouragé ci ci sommet bi nga jël di la ñaanal benn bés ñëw nga am sa équipe ñu lay tourneel mm-hmm. nga yor sa micro di poser say mm-hmm. question mm-hmm. am sa bureau dem ba am sa télé bay lambar lambar TV léegi mu ñëw sax mën na nekk parce que àddina lu nekk rek ci lu tuuti lay commencé kaamil bi si baasin mi mara la commencé da ngay def baa benn tomb la sin ñëw mi mar a ñëw liif ñëw laam-laam ñëw asaxeer ñëw comprendre nga donc nekkal ci lii nànk-nànk suñu borom yàlla na la dimbale ba nga am sa télé mu dem ba télé bu mag du ah, di di di di di char sama client yëpp mhm. di leen wax ne ñëw naa andil naa len lu bees mhm. ñëw leen ngeen gis ma xeex yu mhm. bees yi ñëw na émail yu bees yi ñëw na ongle yu bees yi na vraiment am surprise yu ñu di yu ñu di waajal ndax bientôt dañuy mise à jour kër gi. Mm. parce que kër gi nag buñ ko defee rek léegi xaw na yàgg. Mm-hmm. war nañ ko mise à jour uniquement pour ñu gën a am mbégte ak ak ak ak fierté ci kër gi quoi loolu laay tàggoo di la wax peace. jaajëf.